jërëjëf mbokk internet AFT TV dal leen ak jàmm ñu dellu si ak yéen ci famille sénégalaise te nag ñu dikk ak yéen ci nga xam ne mooy spécial Mariétou ki nga xam ne mooy soxna Mariétou daal aaw buuru këram aaw buuru këram nag ah gis nañ ne tey ji daal teg na fecc beneen tànk bu bokk tak bi mu daan fecc waaw Mariétou daal boo dee xool nekk na ci biir xew mi daal di soloo ko simee ko ak di encouragé ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi xewle muy diggante ki ne moom mooy ne moom mooy am na beneen tànk bu mu ki nga xam ne moom mooy Mariatu bu ngeen fàttalikoo te ginnaaw bi àll di wax nee na ko woon lii daal affaire xale la te xale koy lijjanti daal dem jëli ki nga xam ne moom mooy biige kon nag mel na ne biige plan yi nga xam ne lal na ko plan yi nga xam ne teg na ko ak plan yi nga xam ne maanaam yëpp def na ko pour contrer soxna Batoor ki nga xam ne moom mooy dëgg dëgg serveur bi moom moo ne ci bopp bi mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy Mariatu waaw ndax Mariétu boo dee xool maanaam mënta jàkkaarloog soxna Batoor dëgg-dëgg xëy na di xeex moom ñii ñu di ko gis ndax moom lépp ci discret la koy def ndax boo dee xool bi nga woo nag ki nga xam ne moom lépp looy def na koy def ci discret na nga koy def ci maanaam ci secret ndax bu fekkee di fay ñi nga xam ne dañ doon dóor soxna Batoor di leen di ko di leen jox xaalis di ànd ak ñoom ñi dañ leen ŋàbb adduna bi dañ leen ŋàbb nit ñi dañ leen bomb te mbomb nag lu jara daw man daal li xamal mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def dee ko def ci discret dee ko def ci secret dee ko def ci kii kon nag xam nga ne bu fekkente ne maanaam kon euh, ki nga xam ne moom mooy Biége teg na ay plan am plan yi yëpp réussir comme niñ ko gisee nii lépp loo xam ne soxna Bator waaju doon na ko waajal wala doon na ko fexe wala bëggoon na koo def loolu mujjee échec ci digganteem ak ki nga xam ne moom moy àll àll ni mu ko tagale woon dëgg sa wax ci ki nga xam ne mooy Ndeye Sali Sall foofu mujjee naa échec ndax ki nga xam ne moom mooy bii gi ñëw na fay xaalis kee comme ni mu ko defee woon fay ko xaalis ba mu toxal ko mu fay ko ko mu indi ay fecc katam pour a tas xew mi xam ne moom mooy moom bii gi tamit indi ay fecc katam fexe ba perturbé ba tóor fexe ba yàqu ko fexe ba tooñ ko ba provoqué ko te ci ginnaaw lépp boo dee xool day mel ne ki nga xam ne moom mooy euh, mooy bëtoor moom moo tooñ wala moom moom moo waaye di wala moom moo matari ndax moom mi xeex ak ay fecckat ak def ay affaire te fekk loolu lépp luñ luñ orchestre luñ maam luñ ko tëggal la ndëgg sarax buñ ko tegal la daal ak ni nga xam ne diggante àlla ak kodd fexe na ba yàquwut fexe naa waxtaan ak àlla waxtaan tegaat leen ci yoon ba nga xam ne ñoom ñëpp daal disiwaat nañ ci seen ay raison kon mel na ne moom tamit ki nga xam ne mooy mariatu ku am solo la maanaam ku doxal la ci épisode 97 bi maanaam daal teg na ci loo ne lu ama am diggante digganteem ak nag defe naa mooy doon li nga xam ne mooy doon challenge bi ci xool diggante Bator ñëw na coytu ko xaw a xool Mariétu ba xam ba bu dee songaat wala muy attaqué waat ñi muy attaqué lay bokk wala déet mel ne nag Mariétu xaw na ko cay leeral tuuti ndax nee ko man bu fekkente ne da def say defaa nga taa yaakaar ne jar du dal ci sa kaw yar bi moom dina dal ci sa kaw nag yow yaa def yaa def li ngay def yar bi dal na ci sa kaw léegi daal jeex na génnal ci sama nekk kon nag mel na ne bëtóor fi mu toll nii raagam